crucial de se doter d'un nouvel organe de dafa daal di jot ñu xoolaat li nga xamante ni moom mooy suñuy organe de régulation yi xool naka lañ koy organiser ba mun a méngóog anam bi nga xamante ni noonu la métier tasub xibaar di doxe ci àdduna bi jamono ji loolu tamit bokk na ñu xoolaat bu baax a baax li nga xamante ne ni moom mooy code de la presse bi leneen li mooy euh, dinañ publier liste ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy propriétaire entreprise de presse yi ak euh, ñi nga xamante ni moom lañ moom daal di reconnaître li ni mel nag suñuy service dinañ ci liggéey bu baax a baax ngir liste bi ñu daal di koy génne teg si tamit di xam le ni entreprise de presse yi yëpp dañoo war a conformé wu ak li nga xamante ni moom mooy yoon war nañu fexe ñoom it ñu xool naka la ñuy daal di fayee li nga xamante ne ni moom mooy seen i impôt.